wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt quatre heures maanaam benn bis képp mu jox la résultat yu leer waaye nee na am na cangatug njara cangatug njara googee nee na ku mu jëflanteeg ba noppi rek di nga cee am lu kawe sa njortu waaye nee na noppeegul de am na ndombo goo xam ne ndombog njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu kayit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boolee vingt-quatre heures maanaam benn bis képp di nga gis ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii nag sunu mbokk góor ñi néew kattan la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw dolliwaat waaye nee na feebar yi yëpp yàlla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde jabet ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg gis nag ma nga ca cité Aline Sow waaye képp ku bëgg a jokkoo ak moom it numéro yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 loolu la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare nekk Serigne Lasrar bu yàlla baaxal. ñu door xibaar yi dooree ko ci équipe nationale U17 bi xam ngeen ne tey jii la ñu doon jongante seen match bu mujj soxaloon phase de poule CAN U17 di amee ci réewu Algérie équipe nationale bu Sénégal nag ñetti bal ci dara la dóor Somalie kon jamono ji nag. qualifié nañu ba noppi te poule bi ñu bokkoon ñoo jël pee ndax am nañu neuf poñ te encaissé wuñu benn bit te dugal nañu tamit juróom-ñaari bit muy sept bit te jamono jii tamit meilleur buteur bi équipe national bu Sénégal moo ko yor ndax gone gi ñu naan Amara Diouf dugal na ca kaan ñetti biit kon mooy meilleur buteur bi nañu ñaanal gone yi nga xam ne Serigne Saliou Dia moo leen di tàggat ñu jaar ci seen tànki mag muy équipe national A bi nga xam ne kan bi ñoo ko jël chan bi tamit xam ngeen ne équipe nationale bu Sénégal ko jël waaye CAN u bi tamit ñoo ko jël nañu ñaanal u set bi nag ñu jël CAN boobee nga xam ne ñoom la ñu ko jagleel muy am jamono jii ci réewu Algérie qualifié nañu waaye def nañu jaloore ñu jugee ci équipe nationale U17 bi jël doomu Sénégal bii di Edouard Mendy moom nag bu ñu sukkandikoo ci Télégraphe daanaka digganteem ak Chelsea jeex na ndax ñaari kër yi dooroon nañu waxtaan muy waa kër Edouard Mendy ak waa Chelsea ngir doomu Sénégal bi yokk contrat am waaye waxtaan boobe nag juboo amu ci kon soo moytuwul nag ba saison bi jeexee dina jóge ca Chelsea ndax Chelsea ñoom it noppi nañu ngir ubbi buntu yi bu ñu gisee club bu ñëw bëgg doomu Sénégal bi ñu jaay ko ko ndax jubawuñu ci kàddu ngir mu yokk contrat am waaye yemul ci moom képp ndax waa Chelsea li ñu bëgg moo di seen beneen góol bi di keppaa tamit bu saison bi jeexee ñu jaay ko su fekkee seen bëgg-bëgg yooyu yemb na nag li ñu bëgg moo di wut góol bu mag dénk ko seeni kàng muy waa Chelsea xibaar boobu Telegraph moo ko xamle ñu jógee ci Edouard Mendy indi ak waa Chelsea ak seeni bëgg-bëgg jël beneen doomu Sénégal di pappa Amadou jàlloo moom nag double champion d'Afrique la ndax CHAN jël na ko jël na tamit coupe d'Afrique bi nga xam ne gone yi seen at rombagul ñaar fukk lañu ñu ko jagleel waaye ba mu ca noppee nag dafa dem ci club bu ñu naan Metz gone gi ma nga doon football ca Génération Foot club boobee nag ci équipe B ba la nekkoon waaye suba équipe A bi dañuy jàkkaarloo ak ñoor mu soxal Ligue 2 bu France waaye doomu Sénégal bi woo nañu ko ca match boobee nekk yoon bu njëkk nag ñu koy woo ci équipe A bi muy Papa Amadou jàlloo kon nañu ko ñaanal nag mu football minitam yu njëkk suba bu këlëbam di Metz di jàkkaarloo ak ñoor waaye match boobee tamit doomu Sénégal bii di Malick mbay mën naa am mu football ca ndax mën nga ca liste ba ñoom ñaar nag ñoo bokkoon fu ñu nekk muy génération foot ànd jógee fa ki ci dul bokk kay moo di Lamine Camara moom dafa amoon carton rouge ñu suspendre ko ay match maanaam ñu aj ko ay match moom suba du bokk ca match boobee waaye Papa Amadou Diallo ak Malick mbay bokk nañu ca list ba nañu leen ñaanal nag ñu départ titulaire doxal ca match boobee gone yi nag footballub Sénégal am na lool yaakaar ci ñoom ñu jugee ci ñaari doomu Sénégal yooyu dem ca waa ñoom nag tirage nañu tey jii CAN U23 équipe nationale bu Sénégal nag bokkul ca kaan boobee ndax Mali moo leen ci génne kan boobee nag mi ngi war a door le 2 novembre war a jeex vingt 26 novembre ci réewu Maroc nag la ñu koy jongante bu dee poule A ba ñii ñoo fa nekk muy Maroc mi daloo yëf yi Ghana ak Congo ñoom ño bokk poule bu dee poule B bi ñii ñoo fa nekk Égypte Mali mi génne Sénégal gabo ak Niger tirage bi nag noonu la tëddee waa kaaf tey jii la ñu ko siiwal ñu jugee ci waa kaaf dem ca waa Manchester United ñoom nag dañoo bëgg doomu Nigeria bi di Victor Osimhen te door nañu waxtaan bi Corriere dello Sport nee na waxtaan bi sax bi ñu ko dooree yàgg na lool ndax toll na ci at ñoo ngi waxtaan ak waa kër gone gi li ñu bëgg nag moo di jëlee ko ca Napoli yóbbu ko ci seenub club mu jàppale leen gone gi nag club ba mu ne di Napoli nee nañu cent cinquante millions d'euros la ñu bëgg ci moom waaye Corriere dello Sport nee na waa Manchester United noppi nañu ngir def ca cent cinquante millions d'euros jëlee ko ca Napoli yóbbu ko ca Premier League ba mu doxal xibaar boobu Corriere dello Sport moo ko xam xamle. ñu jugee ci waa Manchester United ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa Liverpool ñoom nag bu ñu sukkandikoo ci Abola. doomu Uruguay bi di Manuel Ugarte di football ca Sporting dañu ko bëgg te gone gi nag tey jii agent wa ma nga woon ca Angleterre ngir séq waxtaan ak waa Liverpool jéem a xool nu ñuy fexee ba xaatimal contrat doomu Uruguay bi nga xam ne milieu bu football am ci moom yaakaar la waxtaan boobee nag jeexagul ma ngay wéy ba léegi waaye yemul képp nag ci Liverpool ndax mën Manchester United tamit li ñu bëgg moo di toog ak agent wam waxtaanee ëllëgu gone gi ñoom it dañu ko bëgg li ñu bëgg moo di jëlee doomu Uruguay bi ca Sporting yóbbu ko ci seenub club mu jàppale leen gone gi nag millier de terrain bu mën la muy def la xibaar boobu Abola nekk ca Portugal moo ko xam xamle. ñu jugee ci waa Liverpool ak mën sa seer United ak seeni bëgg-bëgg waaye Premier League boobee duñu ko génn gum ñoom nag tey jii siiwal nañu onze bi man ci saison deux mille vingt deux deux mille vingt maanaam fukk ak benn yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci saison bi ñu nekk génn na ca Kangya Ramsdale di góolu ca Arsenal moo fa nekk ca défense ba Ruben Dias nekk mën City nekk doomu Portugal moo fa feggoo ak doomu France bi di William Saliba nekk ca Arsenal latéral gauche Zinchenko nekk ca Arsenal latéral droit Trippier nekk ca Newcastle bu dee ca millier de terrain ba ñett ñii ñoo fa nekk muy doomu Brésil bi di Casemiro nekk ca Manchester United

feggoo fa ak Kevin De moom doomu Belgique la ma nga ca Manchester City keneen ki moo di Martin Odegaard moom doomu Norvège la ma ngay football ca Arsenal ci attaque ba ñett ñii ñoo fa nekk Mohamed Salah nekk doomu Égypte moo fay feggoo ak Rashford nekk doomu Angleterre di ci mën Manchester United ki leen ñetteel ca attaque ba nag moo di cappacolik Norvège bi di Haaland nekk ca Manchester City kon onze boobu la waa League bi génne ne ñoo gën a bi ñu nekk te jeexagut ñu jugee ci njiitu Premier League bi ak seeni tànneef waaye Premier League boobee duñu ko génn gum dañuy dem ca waa Brighton ñoom nag am nañu jour bu bees tàq muy doomu Brésil bii di João Pedro ma ngi doon football ca ford bu ñoom Ismaïla Sarr gone gi nag xaatim na contrat ca Brighton li waa Brighton def ci moom ba mu jógee ca Watford mi ngi toll ci trente millions de livres sterling jamono ji officiel na dañuy xaar saison bi jeex rek mu jógee ca Watford dem ca Brighton doxal muy Joao Pedro nekk gone gu mën la muy def ñu jógee ci waa Brighton jël doomu Allemagne bii di Julian Weigl moom nag ma ngay football ca Borussia baax club boobee nag moomu ko da ab bon liggéeyam bu am solo nag tax na jënd nañu ko gone gi jamono ji xaatim na mun ci Borussia baax ba atum 2028 muy Julian Weigl nekk gone gu mën la muy def ñu jugee ci waa Borussia baax jël doomu Espagne bii di Pau Torres moom nag ma ngay football ca Villarreal bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano Juve dañu ko bëgg Juve li ñu bëgg moo di jëlee ko ca Liga ba yóbbu ko ca Serie A ba mu jàppale leen ci seenub défense te jamono ji nag ñoo ngi baral